Penchami Hall featuring the now happening queen of Malaka, Titi. Titi, Titi Safnepa, Titi dama ne Titi pareel rajaxe penca mi xool you've never seen her on stage like this before Titi by popular demand ñëpp di jooy Mos Dolly ànd ak ay ndaanaan artiste tickets gala platinum sixty thousand dollars yi diamond fifty thousand dollars yi gold forty thousand dollars yi and the individual

And before we end this edition of the news, a quick reminder of our headlines. The Gambia has made significant inroads in the detection and treatment of tuberculosis, exceeding the World Health Organization's benchmark of 85%. A laboratory specializing in the production of quality and affordable eyeglasses has commenced operations. South Africans have given the African National Congress another mandate to rule the country it liberated from the fangs of apartheid 20 years ago. And Russian President Vladimir Putin has urged urged pro-Russian activists in eastern Ukraine to postpone the vote on autonomy, but organizers are saying the referendum must be held on the chosen date. Well, that's all in this edition of the news. Thank you very much for the pleasure of your company. We'll be back at 10 with another bulletin. yaatu lewaatu programme yu bëre la buñ leen di isil alxamis bu nekk si GRTS dama am na leen nag lingeere GRTS mu isil leen làmba yi nga xam ne moom ngeen soxla dina fekki naka bërekat yi si seen tàggatukaay yaram yi waaye tamit dina waxtaan ak ñi nga xam ne moo xam làmbi démba ak làmbi tey programme bi nag ndey joor gi bëri nag macha allah ñaar songante neen ku nekk am ko sa géeb bi morom diggante sos ak kooku nga xam ne mooy nay leer dafa mel ni nay leer moo jàpp ngem bi kooku nga xam ne mooy sos ki nga xam ne mooy nay leer mu ngi li nga xam ne mooy bëri suuf diggante nay leer ak sos diggante nay leer ak sos diggante nay leer ak sos ki nga xam ne mooy sos macha am na ngem bi kooku nga xam ne mooy nay leer diggante sos ak nay leer ba tey son demul ak son ñëwul ñoom ñaar seen diggante mbokk yi jamono yi ngeen di dégg kooku nga xam ne mooy Jali Ba Kuyaate di woy woy gu neex googu ñu jël flag bi tuddee ko kooku nga xam ne mooy Maga Ndiaye dëkk foofu sa Paris xam naa ne ñaari mbor yi bu doon man la ku daan ma yóbbu la Paris waaye yàlla baax na ne leen dem ba ca kanam rek dina am jamono yoo xam ne ku daan ma yóbbu la Paris wala Amérique incha allah ñaan nañu yàlla xaalis bu bëri rek. nga ne Zoss ak nay leer Zoss dafa bëgg a yëkkati kooku nga xam ne mooy nay leer waaye dafa mel ni mu ngi kóota ki nga xam ne mooy nay leer daan na Zoss nay leer daan na Zoss waaru na Manouar a ngi wax moom. mbokk yi bii beneen flag la macha allah flag bi dafa nekk diggante kooku nga xam ne mooy Rambo ak Valdo ñu tuddee ko kooku nga xam ne mooy Awa Caam. kontaan naa trop bis na am na maanaa yan lañ ko àggal si jàmm ak salaam incha allah. dañ ne gis mbër ngee bëre yan kàddu nga leen bëgg a sànni. am jom rek yoo ko bem waaw dem bee dem bem jeex rek. lan ngay wax ñi nga xam ñoo la tuddee flag. ñi ama seen fay su ma paree laa leen a fay. jógee club APRC moo ñu féetoon ndeyjoor ki nga xamante ni mooy Rambo jógee club Bakaw moo ñu féetoo càmmoñ ndeysaan arbitre bi fuuf ki nga xam ne mooy Falto dóor na ñaari kur ndeysaan Falto Falto ak ki nga xamante ni mooy Rambo Falto ak Rambo ¡Falto Rambo! ¡Falto Rambo! ¡Falto Rambo! ¡Falto Rambo! diggante tàngajir ak kooku nga xam ne mooy soldier man macha allah tàngajir nag mooy policeman bi waaye kii nga xam ne mooy euh, soldier man mooy soldaar bi ñaani nag dëgg dëgg bëri na ndax kii nga xam ne mooy police bi dafa jàpp soldaar bi di ko dóor a dóor ba daw waaye ma nee naa leen ne kii nga xam ne mooy soldaar bi dawut dafa uddi doole. bismillahi rahmaani rahim si ñaari mbur yi ndax nee naa leen si njëlbeen be macha allah boo demee juróomi at nit ñaa ko doon xaar tey nag ñi nga xam ne ñooy MNB jël combat gi macha allah tega ko diggante tas sa yaram ak kooku nga xam ne mooy xoyontaan tas sa yaram nekk suñu gannaaw tas sa yaram won ñu kanam kii nga xam ne mooy xoyontaan won ñu gannaaw wa tas sa yaram nag macha allah bii moo nekk ñetti bëre dóoram tas sa yaram bii moo nekk ñetti bëre dóoram macha allah